bismillah arrahman irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu asalaamaaleykum mbokki jullit yi asalaamaaleykum mbokki taalibe yi ñu ngi ziyaare ñëpp eh, eh, tey ji teew nañu fi ci bes bi nga xamante ni Serigne Cheikh Anta Mbacké bu Daaru Salaam da koy gane si Serigne Jibril Sung ak ay rakam ak mbooleem taalibe yi ne ci dëkk bi yépp eh, mu doon bés boo xamante ni yàgg na koy taxawe comme na ko waajuram wa doon taxawe Serigne Modou Rokhaya Mbacké def na ko fukki at ak juróom benn ci ren ji ah, a yal na ko fi saa borom yàggal te dooli ko wer ah nu tax nu toog ci nag ak kilifa yoo xamante ne nii dañu de ay kilifa ci dëkk bi. a ah, di jiital ci nuyoo bi ah, kilifa ak bés bi di maam Cheikh Anta Mbacké yal na fi yàgg te wer. ak sëriñ Jibril Sung mi nga xamante ne moo ko fi toogal moom itam yal na ko saa borom yàggal te wéral ko di ci teg suñu baay Abdou ñu ngi mi nga xam ne mooy imaam ci Touba Colla gi moom it yal na ko fi saa yàggal te wéral ko ak mbooleem kilifa yi ci dëkk bi yëpp ak sëriñ Assane Sung moom itam doon kilifa ci dëkk bi nekkal fi sëriñ Mountakha yal na yàlla yàggal leen ñoom ñëpp te wéral leen ak nun taalibe yi njaboot gi ñëpp ah euh, bés bi moom lees mën a wax la ndax bés la boo xam ne bés bu ràññeeku la ci lislaam waaye bés la boo xamante ne bés bu ràññeeku la ci kër maam Cheikh Anta Mbakke borom dërëm ak ngërëm sëriñ Jib Sung mi nga xamante ne bés bi moom la ko yàlla jagleel ci moom la ñuy jëkk a wax sëriñ Jib Sung mooy koo xamante ne ku nekkal lislaam la ku fi nekkal taalibe yi la waaye ku fi nekkal askan wi la ci li nu xam bu baax a baax ndax taxawal na daara ñu di ci jàngal doomi julit yi di leen yar te li yonent bi salaa salaam jàngale woon ne almadarisa xabla almasajid bala ñoo taxawal jaamu yàlla gu mag googu di julli ak jàkk nañu taxawal daara yi loolu bokk na ci taxawaayu sëriñ jib sung waaye doonoon liggéeykat ak rakkam yu baax yi nga xam ne ñoo ne ci ginnaawam loolu xam nañ ko ci sëriñ jib sung di ku bëgg ak bokk kon nag bés bi mu ngi noonu di bésub lislaam di bésub jullit yëpp di bés bu mu bokk ak Touba Refane gépp nga xam ne bàyyiwul kenn góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp la ko seqat kon bés bi moo tax ma ne bésub lislaam la waaye bésub Serigne Touba la waaye bésub maam Cheikh Anta Mbacké la kon dafa mel ni ngir bañ a guddal noo ngi yëkkati kàddooy cant jëmee ci Serigne Jib Sung ndax nun itam xam nañu nu fi mënul féetale ci bés bi ndax kuy def bés féetale la ak alxuraan ja féetale la ak la ëpp doole ca bés ba ndax alxuraan nag Serigne Touba nee na kitaabun bihi narjo minallaahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa uxra min alkarbi huwa sifa min kulli daali man alayhi tamada wa man aba uturija za asratan wa nadam kon noo ngi sant bu baax ngir bañ a guddal. xanaa di sant yàlla bu baax a baax ci li nga xam ne mooy bes bi ndax kat borom bés bi moom daa doon koo xam ne ni ko si suñu kilifa gi waxee lislaam du nga ko ñor te lislaam la fi nekkal mu doon it jàmbaari lislaam joo xamante ne nii eh, li sëñ bi wax ci almadaris xablal masajid loolu moom di koo def daa eh, taxawal daara ji ngir rek eh, maanaam xit xeetu lislaam te it loolu dong mooy yiteem ndax dem rek ñu ngi waxtaan muy wax sax maanaam ay yéeneem yoo xamante ne nii am na ko ci bés bi di wax ba egg si ci ne maanaam euh, ay jullit fépp ñu daje war nañu leen wax lu leen delloo ci seen diine te loola lu ama am solo la ñu koy ñaanal nag mu yàgg fi lool te wer ñun nag moom wax dëgg euh, xam naa méttu nu ci moom seere ndax li fi munu feetale ci boppam daa doon lu rëy a ndax nit ñi bari nanu mu euh, taamu nu ci ci ñëw ñu ñëw taxawu daara ji te loolu moom wax dëgg mënuñu koo fay ndax kaay ma doy la ni ko sëñ bi waxee kaay ma doy la moom kenn du ko wax kon sant nañu ci moom bu baax a baax bes mi nag doon bes bu am solo ñu ngi ñaan képp koo xamante ne ni ñëw na fi tànk yi ngay indi ak tànk i lay delloo lépp suñu borom def ko taw féex ak tayseer waaye it saafara ci jàngaro yi ci barke Sëñ Tuubaa loolu moom sant nañu ci bu baax a baax moom daal kilifa la goo xamante ne nii maanaam eh, ay ak mbaaxam kenn mënu ko wax. noo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di ñaan yàlla ku fi indi aajo ku ne yàlla na ko yàlla faj. ku indi jàngoro ku ne yàlla na ko bëri yàlla saafara bés bii nga xam ne nag moo tax nu taxaw fii tey di bés maam Cheikh Anta bii nga xam ne sëñ Jib Sung la ko jàngale ci dëkk bi yëpp ay mbokkam yëpp a ñëw teew si fii tey tubaarkalla yaakaar la fukki at ak juróom-benn yi nga xam ne moom fukki juróom-benn ñu ngi ñu ngi ñu ngi taxaw taxawu bés bii muy bés bi ñuy màggalee maam Cheikh Anta mii nga xam ne di seetub sëriñ Gaawaan moom la ñuy teeroo nii tey mbooloo mi tabarkala ni ma ko élimaan mi waxee wàcce nañu fi juróom-ñaari kaamil eh, sëñ Youssou Ndour mi nga xay na itam moo yore daara ji moom itam tabarkala ay taxawaayam fii ku ne xam na ko moo taxit sëñ ji moom la jagle bés bi kon nag taxawaay yi yal na ko yàlla yàggal eh, wax dëgg yàlla yoonu islam wi nga xay na moom la moom la ñu yëngatu nii tey islam de moo féete lépp kaw alquran moo féete lépp kaw kon nag it ginnaaw juróom ñoo ngi ji moom sëñ Cheikh mi setu Serigne Gaawaan moom la ñu teeroo tey juróom ñaari kaamil yi ñu fi wàcc fi tey jii yàlla na buur yàlla moo leen ko nangul e li nga xam nag nii rafet na trop ndax bu ko defee li ñuy seede mooy sëñ jib sung mi nga xam nag moom moom bés mi tey itam yàlla def noo boole ba ne day tut tànk ba léegi mosunoo teqale ko mukk bàyyale na ma ñaari doom yi jigéen tudde na ma doom fa tabarkalaaw kon nag it kooku man mënatuma ko fay wax dëgg yàlla moo ak rakam badu sung ñoom ñaar mënu ma leen fay ak ak rakam yëpp ko nekk itam rakam yi nekkoon sëñ bi waxoon fii ndaaw ñu ne eh, kenn mos ta ñëw di ma wax sa mbiri bopp ku ñëw daal sëñ jib dinaa sëñ jib moo ma ne nii sëñ jib moo ma yónni ndaw lii kon sëñ jib mit moo nañu ko maam Cheikh Anta nee nag atam boole naa Cheikhu Cheikh Sénégal Cheikh eh, Daaru Salaam yàlla tey boole naa la ci tey keroog keroog mbooloo mu bari dafa jëblu fii ci moom kon nag sëñ jib yàlla na ko yala yaggal fii moom itam yàgg fii woote fii nu di ko fi fekk moom itam sëñ jib yàlla na fi yàgg rakam ñii rakam yi wax dëgg yàlla dar nañu ko ni mu war a ni ñuy war a dara màgg kon nag juboo gi bokk ak sa mbokk yi juboo ba mbokk ba noppi juboo àjjanay biti la kon ànd bi yàlla na ko yàlla yagal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon su ko defee rek nu daal di tëj ñaan gi ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تعمل علينا اجرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تعاملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين والطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن ختام ربنا وصليا على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جرجن ديو تبارك الله أنا إله الذي عمت موائبه لجملة خلق ما يغتار من برا نجيته جل ومن وكرمني تكريما دين وكل من لخن بري رمان غابن الجميع خلق رمة من يوني عني سر من قرآن خرا هدومة المصطفى عن كل مسدة وطار من خلق يا من جادهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن خول إرم جميع الورى يا خاديا ردا ما تما خان ما قلب من درر bijaayi abdali manillahi hadlaja andante bii nga xam ne moom lañu andante ak Serigne Jibril Song day loo xam ne dañu ko fee ca sunuy baay fa ñu bokkoon nekk mag la ak rak ñu bokk ndey ak baay bokk benn naanu muy kokki doonoon nag kilifa yoo xam ne sunuy kilifa lañu waaye nag royuwaay lañu ñoom la ñuy jéem a roy nag ci seen pas-pas ak seenug taalibe ak seen ngarte xëj na mënunoo ak fa ñoom waaye am na nu yéene ak fa ñu agoon noo ngi leen di ñaanal nag ñoom kilifa yooyu bur yàlla defal leen tawféex ca barsax te am nanu ci ñoom yaakaar ndax ñoonu daan yebbal nuy dem alarbaay kokki saa mosaa jóge fii dem alarba bul nu sëriñ madun gisee day muuñ ree ne ginaaw ah, ginnaaw waa Refane de ñëw nañu suma xel dal na xam naa ne li ma bëggoon danaa ko am loolu mosu da deñ di am nun nag ñoo doonoon sunu lépp ñoom kilifa yi ndax ñoonu jur ñoonu daan yebal waaw ñoonu jur ñoonu daan yebal nuy dem ci seen ndigal di ñib ci seen ndigal ah kon bu ñu demee bàyyi nu fi ak kii nga xam ne mooy sunu taaw baay di sëriñ Jibril Sung moom it ba mu jógee bokk ak yokkute ba mu nu wooyee wax nun kenn tegu ca baat dañu ko ne daal foo aw foofa la nu aw loo waxit loolu la nu wax te loolu am na firnde ndax ba nu eh, yokkoo ci sëñ Modou Rokhaya ba ci maam Cheikh Anta Mbacké mii tey mësunoo wax sunu waxi bopp mësunoo dox sunu doxinu bopp tànk bu nuy seqi jëm ca sëriñ ba ci ndigalam lanu koy defe lépp lu nu wax tey jii sax lii nu wax mësunu koo wax xanaa nag day baatu ndigal bu jógee loo tele tele wax faw nga wax loolu rek moo nu dugal ci nu uh, yëkkati sunu kaddu ci wax مت نبي المنتخى صاد إلى بيت إله الناس واحب الإله مت نبي المنتقى صاد إلى بيت إله الناس واحب الإله حب نبي الإله صور zaadun ilal madinatal munawwara hubbu nabil ilaahi sawara shaadun ilal madinatil munawwara muhammadun salla alayhi la musalliman badat lana hula muhammadun fardun yafuuxu tasniya wa faaxa jamhan wal hadaaya muxniya درجة المختار هب المرسل باحتلاف درجات رسل كل نبي والرسول يتبع خلف وسيلتي هو المتبع أحمدنا أحمدنا الماهي أحمدنا أحمدنا الماهي أحمدنا أحمدنا الماهي مهما ساء ولسوانا ولسوانا ساح من أساء li ahmad al muxtaari li ahmad al muxtaari li ahmad al muxtaari li ahmad al muxtaari li ahmad al muxtaari maa lam yakuni muxtaari muxtaari muxtaari maa lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini جماله يسقي فؤاد الرائي ونهجه يغني عن افترائي مد لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لن نلام مد لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لن نلام يسره قدي في كل سنة wa xayruhu min xidmatin mustaxsana lam yaqfa kawnul madhi wal hubbi ilaa rawdatihi wal baytu saadun wa ilaa lam yaqfa kawnul madhi wal hubbi ilaa rawdatihi wal baytu saadun wa ilaa bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaam على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jurit yi mboolem ñi fi teew ñëpp góor ak jigéen ñëpp mag ak ndaw maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew ak ñi fi teewul maa ngi nuyu ñëpp nuyoo bi maa ngi koy tàmbalee ci sëñ bi ak ñi mu àndal di ko jotal it mbooloo mi fi teew mépp jigéen ñëpp noo ngi sant ñëpp tey gërëm ñépp di leen xamal it ne kër gi nga xam ne fi laay waxe sëñ bi mu di fi teew dara tax ma di ko def li tax ma di ko def boobu sama baay mu ngi dund ma ne ko sama baay booba gune laa ma ne ko otoog sëñ Moodu Maamun Ndey dama koo gén dama koo ko gis mu gaare ci su bunt mu di oto bu ñuul mu ne ma waaw sëñ Modou ma mun lan mooy indi fii otoom sabab boobale suñu borom yàlla ci baaxam ak ndimalam ak yërmandeem mu ngi dem di dem ba yàlla dogal dogal ba daal di ñëw dogal ba mu agsee ñu xamal ma ne ma yow de am na looy wut waaye lii ngay wut daaru salaam nga koy ame lii ngay wut daaru salaam nga koy ame moo tax discours ba ma jëkkoon a def ma ne kuy rooti demal daaru loole moo taxoon ma doon ko wax otob sëñ Moodu Maamun boobee doomam ab setam ñëw na fi setaatam ma ngi nii toog kon gis-gis booba saa borom yàlla leeral na ko daraja joojee nag sëñ Modou Mamoun tooge woon fii moo tax fii fii laay fas yéene di defe ngan gi fekk bakkan bi mu ngi dund fii laa koy xel di def eh, ndigal laa ci am moo tax ma di ko fi def waaye mënoon naa koy bu doon bu fekkoon ne coobaare rek la mën naa ko yóbbu sama kër nde fu ma demit mu fekk ma fa te fu ma fu ngeen fu ma dem di ngeen ko fa fekk te fu ma ne mbooloo ma dana ko fa fekk loolu moo tax sabab boobu moo tax may fab bés bi di ko def fii di leen nuyu bu baax di gërëm sëñ bi ba baax di ko sant ba baax a baax euh, dama am nag ay jafe-jafe waaye dama bëgg su ma nuyoo sëñ bi ba noppi mbay taxaw santal may sëñ bi ak mbooloo mi yëpp. ñu nañu ko ki nga xam ne lu mu teye du rëcc lu ne fa moom du màggat ba ñu di ko yeesal muy borom bi subhaanahu wa taala kon mbokk yi taalib yi walla rëy sëriñ bi ñaanal na leen ci barke sëriñ Cheikh Anta Mbacke mi toog muccuk àdduna ak goog àllaaxira lu ñu jëf yàlla daqal nu ci seytaane ak i pexeem te musal nu ci beewte gannaaw bu sëriñ bi jiitalee bu ñu jiitalee cantu sëriñ Jibril Sung ak ak ñaanam ci barkeeb sëriñ Cheikh Anta Mbàkke ibnu sëriñ Mouhamad Roqee Mbàkke gannaaw bu mu leen sante ñaanal leen mu ne kon ñu fas yéene dugg ci jataayu fàttalante ndax nee na sëriñ bi toog day li ko ñor ci mboolem taalib yi ak jullit yi mooy ñépp di xëñtu doxinu sëriñ Touba di ko waxe fu ñu mën di nekk moo tax mu ne kon ci loolu lay sukkandiku ngir fàttali wante ak yéen fàttali ci boppam fàttali nu ci mu ne ngir ñu mën moytu luy sànq sunu waxtu fii ci àdduna te boole kook bàyyi xel ci àllaaxira te xam ne ki la indi won àdduna te sàkku ko moom nga fay fekk muy sunu boroom bi nga xam ne ñépp aajowoo jëm ci moom ndax fa moom li ñépp soxlawoo fa moom la nekk moo tax mu ne yaa ayuha nnaasu antumul fuqaraa ila allah wallahu huwa alxaniyul hamid yàlla moomu moo bi nit ñi ci ak nàmmeelam ngir ñu jaamu ko ca ngeen jaa sellu jaamu te mooy warsagal ñépp ci coobareem te moo bind dundal leen taxal set a rey te ni nit bëggee ak dund di ko sabablu di xeñtu lépp lu ko fiy tox a yàgg te fàtte nga ne ba nga dikkee àdduna nga war a xam ne dinga fi jóge mu ne te àdduna mu ne su fee jóge te deewuloo kon nag ni nga xame ne bi nga fiy ñëw yàlla la soob yàlla la soob bu la fiy jële du ci diisoo kenn noonu nag nga war a xame ne diir bi nga fiy ne moo ko xam te sàkkal na ko ab digg ndax inna ajalallah isaa jaa laa yuaqar law kuntum taalamoon kon ragal dee nee na nuur ci jëf ju baax moo ko génn mu ne ndax ragal ko dum xel te boo ko dee daw faf dajeeg moom xul in al mawta allasi tafirroona minhu fa innahu mulaaqikum te su la woore summa turra doona te su la wooree ne summa turra doona ila aalimi alxayb wa sahaadatu fa yunabbiukum bi ma kuntum taalamoon ne ci jub ba dee dikk moo gën di ko daw kon diir bu gàtt bi nu fii nekk am te mu am lu mu sant moom suñu borom subhaanahu wa taala te faw mu seet sunuy jëfin ba xam méngoona ak li mu nu digle ak li mu digle woon wala déet kon nun ñi wax ne ay jullit lanu rawatina di ay murit te bëgg a doon yu déggal kon nanu nangu ne li nu yàlla sant nun ñépp la ko yàlla boole muy góor di jigéen ku ne la nga jëf la lay fay bu ëllëgee yàlla nay jëf ju yiw ndax wa man yaamal min as-saalihaati min sakarin aw unsa wa huwa muminun fa ulaika yadxuluuna aljanna wala yuslamuuna naqiira kon jëf ju yiw te sell moom la yàlla bëgg te moo gën ci jullit te sellal itam dafa fekk dafa te sellal itam dafa nekk lu am solo ci diineel islaam ba tax na yonent bi alayhi salaam wax na ne jullit bi sellal diineem dana tax buy jëf du jëf lu neew te ku ne xam na ne jëf ju baax fa ñu koy feye lu ca gën a bari moo cay gënal boroom nit nag dafa war a xam boppam xam ne yàlla mi ko bind fonk ko moo tax mu def ko mu nekk doomu aadama mu indi ko fii ci àdduna te kenn na table wul ne àdduna am na wal waaye wal wa lu mu rëy rëy boo ca yemee ca lala ci yàlla sedd te daggan ci yow nanga nga cay xool yàlla foo toll moo lay moo lay fàttali ne kër gii di àdduna dañu fi kër gii di àdduna dañu fiy toxoo dem ca kër gee tudd alaaxira kon àdduna boo fi taseeg lu sag dund soxlawoo te mu daggan ci ab julit sañ nga ca jëriñu sante ko yàlla waaye lépp luy sànk ak dund ndaw war na koy moytu balaag mag ak dikk te noonee la ko màgg war a moyoo balaa rëccoo wees